mbokk yi asalaamaaleykum wéy di rafetlu seen ànd ak télévision Futur Média xibaar yu diggu bëccëg gi benn waxtu jot kon euh, gën naa fës ci boppu xibaar yi mu di tey ponk mi ci wàllu mbas mi euh, jàpp leen ni kon euh, ci test def nañ ci lim gu toll ak junni ak juróom téeméer ak juróom-ñaar fukk juróom ñi dellu si am doomu jàngoro ji toll ci ñaari téeméer ñaar fukk téeméer ak juróom benn fukk ak ñeent kon am ay cas communautaire loolee nag kon di ay cas communautaire loolee ngeen jàpp ni kon mbas mi ngi yokk bu baax a baax ci réew mi ñu wax ci ñetteelu édition bi nga xam ni gouvernement bi mu ngi koy amal euh, di jàkkaarloog ñi nga xam te ni ñoo di taskatu xibaar yi tey ji jàppaleen ni euh, jëwriñ ji ñu denk wàllu biir réew mi di Antoine Félix Diome ak ki nga xam te ni mooy Abdoulaye Diouf Sarr ñu dénk ko wàllu euh, santé ñu ngay jàkkaarloog taskatu xibaar yi ni ki ba fukki waxtu benn jotee ci suba gi ñu wax itam ci li nga xam te ni rek mooy démb ay jàmmarloo am ci diggante taskatu takk der yeeg ñi nga xam te ni ñoom ñooy ñenn ci waa askan wi lañ joon doon lu ñu ne moo di rek couvre-feu bi ni président de la république daal dina koy décréter jaxate mu daal di dugg démb kon ci tali ndakaaru yi gone yi génn ñaxtu li ñu mel ca Ndar foofee lañ fa seetlu moo di lab gi bari na fa lool ci gi xayma gi toll ci juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett juróom-ñaar fukk kon ci diggante juróom-ñaar fukk ak ñett ba jàpp juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett loolee tax nag ñu lali pexe ngir xool naka la ñuy gone yi ngir ñu jàmmaar ak loolu lay ci États-Unis foofee ñeenti doomu aadama la ñu faat kon gannaaw rek bi nga xam te ni moo ba ngir doon amal Joe Biden eh, ñi nga ñoo jege Trump rek eh, daal di song kon boobile congrès mujj ca faat ñeenti nit waaye juróom fukk ak ñaar ca ñoom jàpp nañ leen lii daan ci toftal li nga xam te mooy eh, li ci yéene kaay yi ne tuuti kon mbokk yi ñu yaatal jàppaleen kon ponk tey jii ci wàllu mbas mi door nañ ko test yi nag toll ci euh, junni ak juróom-ñaar fukk téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar juróom maanaam junni ak juróom-ñaar fukk ak ak fanweer ak juróom kon mu di 1775 kon toll ci nag euh, ñaari téeméer ak euh, ñaar fukk yoo xamante ni ñoo am doomu jàngoro ji euh, juróom fukk ak juróom-benn nekk ay cas contact téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeenti kon di ay cas communautaire ñu ne bilang bi euh, tollu na tey ci ñaar fukki junni ak ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn boo dee xool kon ñu wér toll ci fukki junni ak juróom-ñaar ak juróom-ñett ak juróom mu di kon ñu wér boo xoolee nag ñi faatu toll nañ ci ñeenti téeméer ak fanweer ak juróom-ñett ñoo xamante ni wuyu nañ suñu borom ci mbas mi ñu ne nag jamono ji ne ci l'hôpital ñu ngi toll ci ñaari téeméer ak juróom fukk ak ñaar mbas moomu lay ba tey rek euh, ñetteeli édition bi nga xamante ni euh, gouvernement bi dana ko amal ci jàkkaarloog taskati xibaar yi tey jii euh, ñaari jëwriñ ñooy jàkkaarloog taskati xibaar yi mu door nag ni ki fukki waxtu ak benn ba mu jotee muy jëwriñ ju ñu dénk wàllu biir réew mi muy Félix Antoine Diome ak ki nga xamante ni mooy Abdoulaye Diouf Sarr ñu tàmbali ko ca building administratif ñoom nag danañ wuyu ci laaj yi nga xamante ni journaliste yi dañ ko laaj jëmale ci wàllu état d'urgence beeg mesures yi nga xamante ni jël nañ ko ngir xeex mbas mi nga xamante ni euh, ñu ngi ci ñaareelu wàgg fii ci euh, Sénégal wax ci ni ki démb kon ñu nemmeeku ay jàmmarloo euh, ci mbedd yi gannaaw nag couvre-feu bi nga xamante ni président de la république daal dina koy décréter démb nekk guddi gu njëkk moo am ay ndaw ñoo xamante ni nanguwuñu li nu mel ba tax na ñu génn ci mbedd yi jàmmarloo ak takk der yi dañ ci ànd ak ki nga xamante ni moo di Mouhamed Sam ak Younous Diatta juróom-ñeenti waxtu ci guddi di waxtu couvre-feu bi fii ci Wakaam terewul ba tey mbedd yi di am nit ndaw yi taxaw nag mel ni ki ñoom sàmmoo wuñu ak couvre-feu bi ñenn ñi sax nañ ko ñàkkal fayda. doo xëy xëy rek ne gars yi demain à vingt et une heures couvre-feu xam nga loolu dafay xaw a métti xamoo nit ñu nu ñuy doxee ni ñu ni ñu toogee ni ndax mu ngi nii cere xam nga laa doon jëndi. xam nga boo muñee ay 31 décembre ak yeneen ak yeneen jaar fi yooyu yëpp nga ne da ay màggal Tuubaa yëpp jaar fi kon war nga mën a waxtaan ak nit ki ne ko. sénégalais yi ne leen samedi wala dimanche wala lundi couvre-feu situation bu doy waar lañu gis fii ci ñaari tali ay manifestants yoo xamante ni dañu pare rek ngir jàmmaarlook takki yi nga xamante ni ñoo nekk di def patrouille bi jamono ji ci quartier bu rëbb bi li nag ñu gis ko mu di sànnante xeer wala grenade lacrymogène di liy fàttali couvre-feu bi fi njëkkoon am ci weeru mars. ay jàmmaarloo ci diggante takk yi ak ñi nga xamante ni ñoo di ñenn ci askan bi law ci dëkk bi loolu foo tourné rek gis ko moo xam ci HLM la mbaa ci Grand Yoff manifestant nag dañoo baare tali bi ci yoon bi loo fiy gis moo di ay pneu yu ñu taal ay xeer yu tasaaroo daanaka sax boo xoolee mbedd yi dangay mel ni inti intifada nga ciy gis ñenn ñi taxaw di seetaan nag ñoom seeni gët dong lañu yor pour mun a xam lan moo xew. ñaari xàll yi nekk fii ci Sacré kër daanaka doo fi gis benn doomu aadama bu dul policier yi fii nag dal loolu. terewul ñoom takk yi nag jël nañ seeni matuwaay mbedd mi yëpp dañ ko baare fii ci fas couvre-feu bi nag daanaka fii itam ñu ngi ko fi sàmmoo takk yi ñu fekk fii ñu taxaw ñuy saytu bërëb bi daanaka téeméer boo jël ci ndaw yi manifester juróom fukk ya ak juróom yëpp xàmme nañu leen ki ñu ko xamal moo di sous-préfet bu Dakar Plateau ay daan nag daañu ko amal jëmale ko ci seen kaw. xam nañ fu ñu dëkk. xam nañu comment ça s'est passé donc ku ci nekk dañu la fekk sa biir kër yëkkati la yóbbu la te bu boobaa sax bu kenn taxaw di wax ci leneen donc duñu nangu ay nit yu xamante ne kenn xamul nu ñu mel di jéem a salfaañe n'est-ce pas li nga xamante ne bi état bi teg ko en place donc ñun ñu ngi ci terrain bi tout est sous mais li ñu gis fii en tout cas rafetul jekkul te fi mu kii ñi koy def ce sont nos enfants qui le pour pourquoi ils le font lu tax ñu koy def di ko salfaañe donc am nga ci responsabilité pour sensibiliser. guddi ga di dem di gën di yàgg jaamaarloo yi gën di bari ci 23h bu mu jotee jëwriñ gi ñu dénk kaaraangey biir réew mi moom nag moo teg tànkam ci terrain bi ànd ak mbaboor bu police jaamaarloo yi am nag moo tax kii di Antoine Félix Diome di xamle ni fan yi di ñëw daañu dooleel jumtukaayu takk der yi loolee nag li koy waral moo di dañoo bëgg couvre-feu bi ci wàllu boppam askan bi yëpp mun ko sàmm. tey bu fekkente ni mbir am na. da nga war a taxaw taxawaay bi nga ci war a am euh, waxtaan ci ak ñi nga ko war a waxtaanal ñi nga xamante ni seen xam-xam euh, màcc na jëm ci loolu ngeen waxtaan ci mais en toute responsabilité jël mesures yi ci war ba pare tamit expliquer ko nit ñi xamal leen ni li nga xamante ni mooy mesures yi mesures la yoo xamante ni avant tout pour des mesures de protection la loolu nag moom euh, bi ñu ko defee ba noppi rafetlu nañ gis ni majeure partie population bi comprendre nañ guddi gu njëkk gu couvre-feu bi nag tàngoor na jër fii ci ndakaaru ak manifestation yu bari ñu fi nemmeeku naam sax ñi nga xamante ni si ñoo di l'armée bi moo xam gendarmerie wala sax police wàccoon nañu ci mbedd mi ngir mën a fexe ba ndaw ñi mën a sàmmoo ak couvre-feu bi Mohamed Samba wax nga ko nii ni euh, jëwriñ ñu dénk wàllu biir réew mi wàcc na nag niki démb ci guddi yi ngir jàmmaar looloo yokk ne ni nag danañ yokk li nga xam te ni moo di dispositif yi nga xam te nag daañu ko la takk der yi waaye loolu itam nemmeeku nañ ko ca Ngor foofu tamit kon gone yi wàccoon nañu démb euh, ni ngeen ko gisee ci image yi ngir doon ñaxtu wala ñaawli li nga xam te ni rek moo di couvre-feu bi nga xam te ni amal nañ ko euh, niki démb beneen ci weneen wàll ñuy waxtaanee moo di wàllu couvre-feu bi euh, suñuy ndaw dem nemmeeku askan wi ñenn ñi jàpp ni bu fekkee ni euh, li nga xamante ni rek moo di yokkute coronavirus bi moo waral li nu mel waaye ñoom la ñuy ragal rek nee nañu moo di euh, seen wàll gi nga ni mooy ci li ñuy yëngu di ci suturlu ñoom couvre-feu boobee yàqu ko dañ ci ànd ak kon a Ndiaye mi nga xamante ni demoon na seeti askan wi ñu yëkkati ci ay kàddu waa ji ndongo la mi ngi def master 2 ci faculté bu droit bu université Cheikh Anta bu ndakaaru étudiant bi moom li mu gis rek mooy état d'urgence bi ak couvre-feu bi ci ndakaaru ak Thiès lu war la. pour wàññi kaay bi donc le président en tout cas sama xalaati bon je pense que le président il est dans ses prérogatives. si président bi euh, pour endiguer virus yi mu jëri mesures yi pour euh, wàññil kaay bi. fleuriste bi mel ni lu koy feelu ndax kat nee na li nit ñi nga xam ni am nañu feebar bi loolu rek war naa doy ñu amal yi le dogal. alhamdulilah sant yàlla ba mu indi état d'urgence ce qui veut dire affaire dafa ëpp doole léegi dafa mel ni comme deuxième vague bi moo gën a tàng première vague. booy xool léegi ni heure bu ñuy wax heure boobu boo xoolee jaaykat yi est-ce que mën nañu jaay ba certaine heure est-ce am bénéfice bu am bu ñu ko am. liggéeykat yi ñoom bokkuñu ak ñoom xalaat. li tax mu metti mooy ñun secteur transport euh, ñu ci bëree bëri guddi gi la ñuy liggéey ndax guddi gi moo leen arrangé moom la ñu tàmm di liggéey donc bu ñu leen ko xañee dana metti ñoom. dafa da ngay xëy huit bu huit heures doo gis client bu leen ñaata astomac ñi ne ci marché yi wala di yëngu ci yenn business yu ndaw yi daal. war nañu xalaat ñi ci ginnaaw ñoom bu ñu xalaat rek. danañuy xëy rek def benn affaire rek war ko def non non. ñun ñun la gën a sonal parce que guddi yi xam nga client yi si lay gën a bëri ñun foo la ñuy tàggalee pour am dara xam nga euh, bu ñu tëjee ay vingt et une xam nga liggéeyatuñu daal. waaw dañ doon dem ba ay une heure du matin deux heures ba trois heures sax dañ ko doon liggéey parce que moment boobu la ñu mën a am client yi nga xamante ne euh, bon waaw dañ génne dara ko dogal yi ñu ne li ko tax a jóg mooy virus bi ni muy wàllante ci biir nit ñi ñu dakkal ko wante nar naa laal ñu bari rawatina secteur yi nga xam ni ñoom la ñu duppee informel. Maimouna Ndiaye jëf ci wàllu mbas moomee jàpp leen ni xalif général des Mourides nag daan nay dakkal mboolem agence yi nga xam ni daan na ko joxe kon ci diirub euh, juróom. ñetti fan ci weeru janvier euh, ba jàpp li nga xamante ni moo di ñaar fan ak ñaar ci weeru janvier noo ne nag loolee li ko waral moo di euh, ñu seetloo mbas mi tegi jéego ci réew mi mu ngi sàkku ci askan wi ñu ñu daal di sàmmook li nga xamante ni moo di mesure barrière yi nga xamante ni ñu yor wàllu euh, wér-gu-yaram ñoo ko digle ñu wax li nga xamante ni moo di waa Eiffage ñoom nag xamle nañu nii gannaaw couvre-feu bi nga xam te ni rek nguur gi euh, daal dina koy décréter euh, li nga xam ni moo di autoroute à péage bi euh, ci diggante Dakar jam Diamniadio AIBD daañu ko tijji nag bu juróom-ñeenti waxtu jotee ca ngoon di 21h ba jàpp juróomi waxtu ci suba gi di fajar gi nee na ñu koy tijjil nag moo di képp koo xamante ni rek yaa ngay jëm ci aéroport international AIBD nga yor li nga xam te ni moo di sa titre de voyage ak sa billet d'avion bu dee ambulance ak yenn corps yi maanaam mu di police gendarmerie ak ñoom daal. Euh, tijjal nañ leen ko waaye itam mboolem nit boo xamante ni rek yor nga autorisation voyager mën nga jël kon lii di autoroute à péage bi ci jamono yoo couvre-feu wax tamit ba tey ci gannaaw nag couvre-feu nga xamante ni décrété nañ ko ñu jàpp ni kon jëwriñ ju ñu dénk wàllu tourisme ak transport moom nag daal nay xam ne ni wol yi nga xamante ni dañu ñu bàyyeekoo euh, fii ci euh, Sénégal di dem bitim réew kon daanu am nañu war a amee waaye mu jàpp ni rek kon ci yenn conditions yi lañ koy amalee jàpp kon ni waxtu couvre-feu yi bi mbooleem kuy voyagé euh, na nga yor rek li nga xam te ni moo di sëpp document de voyage boo xam ni euh, daal nañ lay may nga mën a jël yooyu le roppalaan ñu dem Jurbel lañ fay waxtaani ci benn bokk na ci ña doomu Jurbel ya nekk ca bitim réew ñoom nag daal di lëkkaloo boole seen doole ngir rek jàppale seenub gox jàppale seenub gox nag ci wàllu santé di maanaam wàllu wér-gu-yaram ba tax ñu yëkkati seen i jiba jënd ay matériel jégleel ko wala jagleel ko yi nga xam te ni rek moo di yenn ci structure sanitaire yo nekk ca bërëb ba dañ ci ànd ak yi nga xam te ni moo di euh, Cheikh Sadibou Mboup euh, ci micro Babacar Diouf ñaan nga ci kaw xel maa nga ci suuf ñun lu baax rek foog na ni njaari ma ko moo ko yeyoo te santé nag dafa doon loo xam ni ah dafa am solo lool ndax ni ma ko waxee sànq nee nañ tal bi ak fekk bi moo war a jàmbat gi kon maanaam tal gi mooy santé bi bu santé amul dara amul ñu ni nag naka lañuy def ba li nga xam ni moo manqué njaarim te ñu mën koo am ñun te duñu ko te dara ñu jéem a ñoŋal loolu naka lañ ciy def ñu ni ah kay la ñuy sabew fexe li ñu néew ñu njaarim tey yóotu leneen du jeex sànq fa mu jógee du fa jeex te fii du fi doy kon nag li ñu war mooy ne ci mbir mi nag du lenn lu dul jaayante jaayante gi mooy lan mooy jàpp ni loolu sa bët may sa fit war la ko mën a xañ sa fit nu mu la koy xañe mooy mën naa mën a mën a ñu njaareem ay coono rek nag la laaj dëkk bi nag boo fi nekkee dooni li doo xaar ci la ma dëkk bi defal da nga naan lan laa war a mën a defal dëkk bi loolu mooy li nga xam ni ñun mooy suñu mbir muy pas-pas pas-pas nag moo ëpp ci nit li ci des yëpp ay détails la loolu daal ci tënk moo taxoon ñu indi lu tolloog ñaar fukki lal bu ko séddale ci structure de santé yi ak ñaar fukki chaise ak juróom-ñeent bu ko séddale ci structure yi. ca Foundiougne moom jàppale ni conseil département ba ñoom tamit ñoo xool lan la ñu mën a defal dëkk bi ba tax na ñu bëgg rek daal di yedd gone yi euh, ba daal leen découragé loo nga xam te ni rek du ñu mën a jël li nga xam ni moo di mbëkk mi euh, jëm Espagne ba loolee tax nag ñu daal leen jël teg ci kuréel euh, jéem a tàggat yëkkati ci lu tollook fukki million ak juróom ci suñuy koppar débal leen ko ngir ñu mën a rek financer li nga xam ni moo di seeni projet dañ ci ànd ak Aminata Goudiaby ak Abdou Karim Bey Foundiougne nag ci département yi nga xam ni ñoom ñoo nekkee ci région bu Fatick bokk na ci bi nga xam ni moom la immigration clandestine gën a sonal conseil départemental nag ni dañuy sóob seen loxo xeex mbir mi moo tax ren ji nag daañu jël lu tolloo ko fukki million ak juróom jagleel ko office départemental pour l'emploi des jeunes bi nga xam ni moom moo nekkee ci Foundiougne ngir jàppale ko ci ay yi muy def. ba tax na ren budget bii nga xam ne woote nañ ko. mais préparé nañ ci budget bi 15 millions yu nga xamante ne fas nañ yéen a jox ko ODES pour que mu jàppalee taxaw ci ndaw yi ba ñu bañ a dem ci ndox mi mooy quinze millions yi moom moom lañ jëlagum fas yéene teg ko ci loxoy ndaw yi jàpp nañ ne loolu moo am Fatick am Bambey am Diourbel am Gossas te bu ñëpp defee loolu rek jàpp naa ne eh, dinañ xale yi dañ am ci luñ jàpp. ci loolu sax ne ñu fi mu ne am na lu ëpp tuuti fukki ndaw yoo xam ne jàppale nañ leen ci wàllu matériel ci seen ay ci bëri ci ñoom nag ci wàllu élevage dañuy yëngatu. onze projets yu nga xamante ne financé nañ ko tey ci département Foundiougne joxuñ leen ko xaalis dañu ko jox ay matériel ah, ay matériel yu xamante ne dana jàppale xale yi loolu nag liñ ci jublu mooy jamono jii ñu toll ku ne xam na ne xale yaa ngi génn réew mi di bott di ci ndox mi te funjuñ ku ko wax xam ne soonu ndox ay gaal a fi nekk moo tax conseil département jàppante ak ODES pour ñu jàppale xale yi ba man leen a financer ba seen xel génn ci loolu. conseil départemental bu Foundiougne nag voté na budget deux mille vingt et nga xam ne ëpp na tuuti trois cent trente et un millions de francs CFA ne ñu bokk na luñ ci fas yéene liggéey tabax ay jumtuwaay jëm ci wàllu njàng meeg njàngale mi ak itam gën a yokk doole bërëbu fajukaay yi ngir ñu gën a mën a xeex li nga xam ni moom moo di coronavirus. Aminata Goudiaby ñu ngi koy wax ci boppu xibaar yi ca Ndar moom jàpp leen ni lab ga leen sonal ñu ne mekku kon ci juróom-ñaar fukk ak ñett ba jàpp juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett kon ci ay yoon yoo ni lab nañ ko ca déggee loolee tax rek kon ñu sampi kuréel ngir nag xool nees la ñuy def kon ba daal di sauvé gone yooyee tax nag ñu daal leen di tàggat gone yi toll ci ñaar fukk ak juróom ñu xool naka la ñuy mën a def daal ba jàngal leen bu ñu gisee seen morom boo xam te ni toll na ci jafe-jafe ci biir ndox mi nees daal la ñuy def ba daal di koy sauvé dañ ci ànd ak ki xam te ni mooy Ousseynou Diop ak Habib Seck Ndar géej dëkk la boo xamante ni ndox moo ko wër yeneen dëkk yi itam yi nga xamante ni dañ ko wër lu ci bare ndox am na fa di dex wala boog ay déeg mu mel ne kon askan wi ñu ci bare di faatu te leeg ñakk ñu leen sauvé moo ko waral tax ñaar fukk ak juróom ci ay ndaw ñu daal leen di tàggat la ñu bëgg nag mooy bu fekkee ni nekk nañ ci yenn ci bërëb yi am xale wala mag yu lab ñu mën leen lab bi loole mooy xalaat bi nga xamante ni amal nañ ko file ci Ndar géej bëgg nañu ñoom fi jógee waaye aussi ñu mën a xettali nit kuy lab ci géej bi wala ci dex bi. xayma bi nag mooy ndar géej ñi nga xamante ni dañ fiy lab bare na at bu jot xale yi bare dañu ñàkk seeni bakkan ci géej gi wala bokk ci dex gi loolee nag la bëgg mu dakk loo xam ne tey jii dafa jaadu ñu ñu tàggat ndaw yi euh, pour que ñu mën a jël li nga xam ni moom mooy sawe nit ñi parce que gis nga ndar li fiy lab bare na li fi lab bare na lool ci ci ci ndox yëpp nag que muy dex gi que muy piscine yi géej te am nañ naam ñoo xam ne jàngal nañ leen tàggat nañ leen waaye doyul te am na ñoo xam ne tàggat nañ leen waaye tàggat na leen rek ci ci ci ci garder géej gi waaye tàggatul leen ci sowe nit koo xam ni dafa la ba nu génnee ko ba pare. ci seen formation bii lu bare te nañuy sauver mag wala xale daan na leen koy jàngal. waaw am na crawl de sauvetage am na brasse brasse de sauvetage am na doo crawl maanaam ay système la yoo xamante ni boo demee ba boo wax ak victime bi ba mu accepté ni mën na collaborer ak yow. nan nga ko booy dem nan ngay demee ak booy dellu si nan nga koy téye pour génnee ko yooyu yëpp dafa am yoon. yi nag ñaar fan ak juróom daañu ko nekk ci bërëb bile ñuy tàggatu ngir mën a sauver yenn ci seen morom yi nekk ci jafe-jafe ëllëg te ñoom ñu war a bokk ci ñi nga xamante ni ñu leen di xettali. bàyyi ko ndar kon dellusiwaat fii ci ndakaaru fan yee ñu génn amoon na coow yoo xam ni ay nit a jugoon nii waa DSCOS dañoo ànd ak ay nit daal daal di toj li nga xam te ni moo di seen terrain foofee Euh, ñoom moom terrain ya nag ñoom génn nañu daal di indi leeral ñoom nee nañu kon yooyu la terrain ñu ngi ko jënd ci atum génne li xam ne moo di titre foncier euh, ñoom coopérative boobee ñu duppee yàgg business nee nañu euh, ñoom seen i terrain ñoo ko moom porte parole bi di Seydou Sy ñu déglu ko ci micro Pafare ñi nga ko amul ba. la kayit yi ci lañ ko amoon ñu dem ñoom dem ñoom ba ñu ko jaay bi ñu ko jaay ñu yóbbu ko am ci ay titre foncier yu leer naññ titre foncier boo xoolee numéro yaa ngi nii ma lay wax 312 mooy titre foncé bi ak 24 22 ak 24 27 titre foncé yooyu lañ ko amee ci kanamu notaire lañ ko jëndee notaire bi mën naa laa wax turam ndax ku ne xam na notaire bi Moustapha Ndiaye kon bu ñu waxee ne ñoom ñoom moom suuf si nañ ñu indil ay kayit ñun kayit yii lañ lor te kayit yi daal leer nañ léegi nag képp koo xam ne bëgg na ci leeral ci suuf soosu nga xam ne moo nekk Rufisque ca Kounoune na ñëw indil ñu leer wala lu ci way bëgg tamit muy journaliste muy ku mën a doon nañ ñëw ñu leeral leen ko ndax ñun ti suuf sii président mayuñu ko président joxuñu ko dañ koo jënd ci ay kayit yu leer naññ amul kenn koo xam ne moo ñu may suuf si dañ koo jaay ñu jënd des ko seen yoon nekku ci état seen yoon nekku ci ñoom li ñu man mooy atti dëgg rek des ko ci atti dëkk la ne ndax dañ ko fee teg jaaroon nañoo ak ñoom ci ay ay yoon ba ñu daaneel leen ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo ne woon ñoo ko moom ñu ci ëpp ñu tëj leen wàllu campagne bu gerte lii la ñuy wax jàppale ni kon euh, ci lu tollook euh, ñeenti euh, junniy tonne ci wàllu gerte boo xam te ni dañ ko jëm di ko jëfandikoo ngir am diwliñ moom mais nag kon la ñu amal ca région bi lay nga xam te ni moo di Kaolack loolee nag direction régionale bu développement rural daal xam ne li ni mel wax ni nag li nga xam te ni moo tàggatémbeel yenn yi ci wàllu exportation kon yëkkati nañ ko ci campagne boobule te mbir yi ñu ngay dox na mu waree Sonacos jàppale ni am na ci lu tollook ñeenti téeméeri ton yoo xamante ni wut na ko foofee ci ginnaaw COPEOL mi nga xamante ni rek moom am na ñaari junniy tonnes ak lu tek dañu déglu directeur régional développement rural bi ci di Souleymane Diop ci micro Ibrahima Diame ak Fally Gueye réalisation bi mu ngi dem normalement euh, donc euh, usines yaa ngi jënd exportateurs yaa ngi jënd également jiw bi ñu ngi koy jënd ko stocké Euh, boo ko seetloo temps yële xawoon na am tuuti kii ci wàllum gerte euh, exportation bi parce que dañ ne woon na acteurs yëpp toog waxtaan pour que au moins prix bi ñu déggoo ci benn prix boo xamante ne vraiment du jéggi jaay du jéggi dayo ba nga xamante ne maanaam day lor prix jiw gerte gi prix ji gerte goo xam ne ci jiw la jëm moo taxoon loolu euh, autorités yi ñoo ko demande woon loolu am na ba levee nañ léegi euh, pause boobu nga xamante ne moo amoon ci wàllu exportation bi depuis démb ci altine bi donc actuellement vraiment lépp mu ngi dem normalement commercialisation bi mu ngi jaar yoon. waaw boo jëlee sonakos presque moom mu ngi ci 400 tonnes environ 400 tonnes euh, boo xamante ne moom la jëndagum boo jëlee Copéol moom mu ngi ci presque 2000 et quelques tonnes euh, nga jël waaw moom mu ngi ci presque junney tonnes donc fu ma lay waxee nii foofu lañ tolloogum. mais yaakaar naa ak reprise bi nii vraiment euh, rythme bi dana yokk ci semaine bi di ñëw. dañuy ànd ak di Saprera génn Sénégal dem ca Centrafrique foofu léegi nga xam te ni suñu ndaw a nga fa woon ñibbisi nag waaye la mu jotoon def rek moo di waxtaan ak doomu sénégalais ya fa nekk euh, doom yoo xamante ni ñu xarañ lañu ca wàll ga ñuy def mu di garde pénitentiaire di Saprera seq ak ñoom waxtaan dañuy déglu reportage république centrafricaine ñu bëri dañ koy faral di umpale teewul administration pénitentiaire di def liggéey bu am solo ci réew moomee. Euh, officier pénitentiaire yi nga xam ne dañ leen déployé fii nii ñu ñëw ñu jóge ci différents pays xam nga ku nekk da nga ñëw ak sa xam-xam. donc bu ñu yegsee fii balaa ñu leen déployé dañuy euh, organiser ay formation pour harmoniser seen xam-xam. parce que bu ñu ko defulee ku nekk da dem ak sa xam-xam su boobaa liggéey bi nous allons pas nous allons pas conjuguer le même verbe. formé nañ benn équipe boo xam ne euh, groupe d' intervention lañ koy tuddee mhm. donc loolu yëpp si renforcement euh, capacité la bokk. Mhm. dañuy jàpp aussi ci formation waa dëkk bi. wax ni am na fi juróom benn équipe mhm. ah pénitentiaire ñuy toll yëpp du Sénégal kese yeneen réew ci leen bokk. leen bokk na ci équipe yi équipe bu ñuy tuddee euh, appui aux réformes. Euh, pénitentiaire maanaam équipe texte équipe projet de texte équipe boobu man ci laa bokk mooy équipe bi nga xamante ne dañuy xaatim ay loi ak ay règlement ak ay décret yi nga xamante ne ñoo war a ñoo war a doxal kaso bi euh, kaso yi nekk fii ci Centrafrique ndaxte dëkk bi bu mu yëngoo amatuñu loi yu bëri wala seen yenn loi dafa désuet tàggat gunge ak saytu fukki kaso ak ñett ya réew ma am rawatina ci dëkk boo xam ni ñu caabi féete ginnaaw léeg-léeg ñu nekk ci ay jafe-jafe. parce que njëkk bi ñu doog a ñëw da ngay gis benn nit ñu rek ne ah kii de yaa am problème ñu ñu ko prison parce que laal pour que woote téléphone ne kii nekk def prison ñu ko dugal prison bi mais bu ñu ñu xam ne loolu yëpp ça n'a rien à voir avec les textes donc ñu def lu tout ba ñu respecte textes yi que kenn dootu wut kaso sans kayit bu leer. xool aussi vérifier signer est-ce que moom il est habitué à signer le de détention ak si ban fànn la ko la ko defee donc ana dimbali si yàlla dimbali ñu si ñu jàppale parc national bi ñoo xam ñoo ngi liggéeyal di la forme su lu bëri di la encadre su lu bëri surtout avec la sécurité de la de la prison. loolu yu bëree bëri yoo xam ne dañ fa manqué woon te pour liggéey bi dox ak ñu mën a respecté ak ak yeneen détenus yi fa nekk ñi fay ñi fa nekk il faut que documents yooyu ñu existé foofu pour ku si nekk. jour bi ngay dugg si ba ba ngay ñibbi ñu mën laa poursuivre xool li ñu war a def si yow par exemple am na ñoo xam ne dañ fay nekk solo ñoom seen loi ñu ni dañ siy adapté wu si seen code de procédure pénale ñi nga xam ne dañ fay nekk def fa ay fukki weer ak ak ak ak juróom-benn suñ ko ëppalee ñun dañ koy dem ñu signalé ko suñu section ñooñu def intervention si si pour ñooñu soit juge bi mu xool nu mu leen atee wala ñu bàyyi leen. mën parce que dañ jugé ne c'est arbitraire. bu weesoo tàggat gunge ak saytu googe agent yi bokk na ci seen mission jàppale réew mi mu tabaxaat ab administration pénitentiaire bu méngoo ak jamono te dëppook àq ak yelleef yi doomu aadama. suñu liggéey fii nii dafay fekk si tabax ay kaso yu bees di defaraat ay kaso yoo xam ne aussi dañu yàq woon. ba donte fukki agent ak ñett rek la ñu affecté foofu ca MINUSCA agent administration pénitentiaire sénégalais yi bariwuñu naam waaye seen expérience ak professionnalisme bokk na ci li ñu naw bu baax. jëf di sa Pereira kon mi ñu demaloon Bangui ca Centrafrique toppaloon ñu doomu Sénégal ya fa nekk di ab dossier kon euh, ci bile xibaar jeexaleeg États-Unis foofu lay ñu nemmeeku lu fa Moustapha Fam mu nga xam te di Trump ñu daal di koy daan rek mu waroon abale joxe toogu gi kii di Joe Biden Trump moomu lay. moom la ay ñoom dugg ca euh, saalub congrès ba euh, indi fa ay euh, jaxase ba daal ñeenti doomu aadama mujj faatu ñoom ñu faat leen nag juróom fukk ak ñaar ñu teg leen yoxo loolee di gulet ci démocratie bu États-Unis tax na communauté internationale bi ci boppam moom yëkkati ay kàddu jaarale ko ci Emmanuel Macron mu ñaawlu lu ni mel ni ñoom nañ def seen këm kàttan rek ba nga xam te ni samp démocratie foofee ci États-Unis mu wéy fa di dox ñu jeexaleeg li nga xam ni moo di li ci yéenekaay ànd ceeg Mamadou Mohamed Ndiaye ngeen jëf couvre-feu gi far na jur couvre-feu ci dëkk bi yëral xët mu njëkku la dogal bi njiit réew mi jël jëm ci état d'urgence gu ànd ak couvre-feu waa Ndakaaru wane nañu biig ne àndunu ci manifester gu rëy la ñu gis ca Médina gis ko ca ñaari tali gis ko ca Grand Yoff gis ko ca Pikine ak ca Parcelles Assainies ca police bu ginnaaw ay ndaw ñoo fa demoon songi ko Vox Populi nañu kaawo ak fitna la ñu dund démb ci guddi ci Ndakaaru quartier yu bari ci bi ay sànnantey dojàkk joorantey lacrymogène moo fa fii ci Ndakaaru it baram wata yu bari ci Ndakaaru daanaka ci kaw tali bi la ñu yenn ndax embouteillage bu jéggi dayo ci nekk bëgg ñibbi këram laata couvre-feu bi di tàmbali l'observateur nañu état bi ak état d'urgence mbedd mi ak couvre-feu intifada gu rëy l'observateur nee nañu moom la dund biig ci mbeddi ndakaaru yi ministre intérieur Antoine Félix Diome dafa mujjoon wàcc ci terrain bi ngir gisal boppam situation bi Walf Quotidien bind ci xët mu njëkk ne décret bi président jëloon jëm ci teg ci réew mi état d'urgence bu ànd ak couvre-feu décret présidentiel ko taret bëgguñu ko ànduñu ci te it wane nañu ca ñaari tali ca Médina ca Grand Yoff ca HLM ca Yoff ak ca Pikine ak ca Géejawaay journal bi loolee la ba tegal ñu ci ne bari ay transporteurs yoo xam ne waxtu couvre-feu yi na bett moo tax bi ñu ñëwee ba yegg si jam ñaaju heure bi jot dañoo gaare seeni wata ndànk fanaan ci biir takk der it sonn nañu lool ci guddi couvre-feu gu njëkk gi démb ne fay ay sawara dindi ay barrage yu nekk ci yoon wi ak di doo dàq ak manifester yi daanaka ci loolee la ñu fanaan ko song ba am na lu ñu fa bi der yi doon dóor dàqe ak ñoom lii quotidien nañu Macky Sall doon tontu ci dogal bi mu jël ngir xeex mbas mi soleil national mel ne ku naan ñu kon de des naw xam ndax démb ci àllarba bi ñuy amal ndajam conseil des ministres président de la république Macky sant na gaañam yi ngir ñu fexe ba misir yi ñu teg ñëpp tege ci nee na leen it muy ci ministère yi di ci structure publique yi nañu fexe ba jële fa lépp li di rassemblement bu méngawul ak mesure yi avocat bi di maître Aladji Diouf ni ñu ci lii quotidien Macky Sall mi bëgg nit ñi tege ci yoon a naan ñoom la ñuy couvre-feu libération xëy ñu yeggee li nekk ci modification loi bi jëm ci wàllu état d'urgence ak état de siège nee nañu Macky Sall nee na nip tey pouvoir yépp am na sañ-sañu décréter couvre-feu ci réew mi te du soxla ab état d'urgence bu ko neexeet mën naa jël dogalu wàññi déplacement yi ci diiru benn weer boo xam ne mën na koo renouveler benn yoon sañ-sañ yooyee ko loi bi jox mën naa sant ministre intérieur mu doxal ko ba beneen ministre bu yëf yu soxal wala gouverneur yi yi Le Quotidien nañu l'heure est grave gi ñuy wax ku xool bakkan yi mbas mi jël xam ne lu wér la xëy na ci Ndakaaru ak ca kees fa la foofee rek ne muy ca Jurbel di ca Ndar ca Sigicoor ak ca Kaolack feebar baa nga fay def lu dara jarul ñu jaare fa jàll ci Source A mi ñu xamal ne diggante Macky ak maître Moussa Diop diggante ba neexatul ubbil yéenekaay bi moom maître Moussa Diop ginnaaw bu ko président Macky Sall tëbalee ca bopp Dakar dem dikk indemnité di ndàmpaay yi ñu warloo ak moom dañu ko tëye bloqué ko bëgg ndawal ku mu tax a fekk ñay nga di ko galgal doo am yàpp doo am jàmm waa jii di ko dal M Fall l'observateur ne nañu ab la àndoon ak ko gangam yore seeni ci ay sandarma CICN yu Séwéeru ca boori aéroport Léopold Sédar Senghor ñu bëggoon leen a agressé waaye waa ji di emu fal l'observateur nee nañu hôpital la mujjee ak tànk bu ñu dagg jirë ngeen Mamadou Mohamed Ndiaye couvre-feu na jur couvre-feu am ci dëkk Mamadou Mohamed Ndiaye jërëjëf mbokk yi xam ne machine na deme noonu jërëjëf euh, benn waxtu teg fanweeri simili euh, fii ñu yemale xibaar yi euh, jox leen dig daje kon 19h30 ak 20h bi dana fi ñëw dégtal leen li ci xibaar yi jamono ji nag ñu ànd ak ki nga xam ni moo di Mamadou Ndiaye moo ñuy wuutu fii ci li ci biir internet bi jàngeen jëf